Cheikh Ibra yow ku réer yaa ko gindee. Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall. dëgg maam Cheikh Ibrahima Fall ñu ngi leen di nuyu di leen jaare di leen balaax di leen balaax ñu wax na ci kàddu sëriñ Cheikh Ndiaye jëwriñ sëriñ Modou Mbende Fall sëriñ bi dafa wax ne liggéey boobu nga xam ne dañ ñu ko joxoon yëkkatiwaat nañu ko tey jii ci àjjuma ji booleem njabootu Cheikh Fall bi ñu ngi leen koy yëgal fi waaye mën a nga xam ne liggéey bi yoraat na te bëgg nañ ñëpp daal di teew si boole ko addiye yi dañu ko ci boole sëriñ bi nag dafa wax ni mboolem koo xam ne kii ci kër gi nga bokk ñu ngi la ciy woo te di la soññ tey soññee ci addiye yi ñu indaale ko bu ñuy ñëw nañu indaale seen addiye yi nga xam ni moo doon saa si nga xam ni naka jekk da daan dem ci kër gi looloo tax tey jii. sëriñ bi wax ni na fi Lamp Fall FM rajo bii nga xam ne bii di télévision bii nga xam ne bii nii mooy turandoo sunu maam Cheikh Ibrahima Fall teew si fii bëgg a jottali mbooloo mi liggéey bi ñu xam ni tàmbali na gis ngeen mbooloo mi damu toll moom ku dikkulit te gis image yi da nga xam ni eh, liggéey bi moom tàmbali na kon nag fu waay mën a te bokk ci na nga xam ni yaa fa bàyyi sa bopp waaye ndigal bàyyeetu la fa njabootu Cheikh Abdou nag li leen xamee mooy jëfe bu ñu déggee baatu ndigal rek ñu jóg taxaw li ñu jàppoon ñu bàyyi ko dara appalu nu baatu ndigal bii nga xam ne moo bàyyi ko kër Cheikh Ibrahima kon nag fii waay mën a nekk ñu woo amul diibaanu amul taxawaalu amul amul amul def leen loo loo jàppoon rek te muy niroog sa yëf yi bopp da ko daan teg fi suuf te ñëw ci ndigalul sëriñ bii nga xam ne mooy suñu lépp tey ak ëllëg kon sëñ baa ngi woo ñëpp bokki taalibe yi loolu mooy li nga xam ni loolu la sëriñ bi waxoon nañ leen ko jottali ñëpp nag ñëw nañu koo xam ne kii ni ñëwaat boo nekk yaa fa bàyyi sa bopp waaye sëriñ bi woo la te sëriñ bi ñëw na ak njabootam ñëw nañu sëñ Cheikh ñëw nañu ñëpp a ngi nii toog doom yi ak rak yi ñëpp a ngi nii toog kenn desut te kenn ku ne nag na nga xam ne am nga yitte joo xam ne bii waroon na laa mën a tënk waaye yitte yooyee dañ ko bàyyi ndax bu baatum digal xasee jub suñu yitte yëpp mooy baatum digal kon na ñëpp wuy si sëriñ bi loolu la sëriñ bi di woote tey ji ci àjjuma ji sëñ baa ngi woo ñëpp nag bàyyiwul kenn fu fi waaye mën a ne nag na xam ne yaa fa bàyyi sa bopp waaye baatu ndigal bàyyiwul fa ndax kenn ku ne ci noonu ku ko ni maa la gën a gëm Cheikh Ibrahima mu daal di bëgg a summi ko songoog yow kon nag li li li liy loola mooy boo déggee baatu ndigal bi bu la fa kenn jiitu bu la ci kenn man itam loolu la sëñ joxoon naa leen ko jot li asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di woo ñëpp nag di woo ñëpp jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki taalibe yi bokki julit yi kon dégg ngeen soññee bi Serigne Saliou Fall moom Cheikh momadou tawa Fall soññee ci liggéey bu mag bu tedd bi di kër borom Touba Xaadimu rasoul di soññee bu matalé kër gi nak dafa am lu nu ci dal mboolem sunu nun murit yi ndax kër borom Touba yi kat li muy bari bari kër gi mooy xol bi Daaru Salaam la jëkk am ci kër ak Touba bu dee bopp de mën nañ loolu bopp baa waaye xol baa ngi fii ndax kër gii nu nekk fi la borom Touba Xaadimu Rasuul fi la nu feeñoo ci duniyaa fii fi la nu borom Touba feeñoo ci duniyaa ndax kër sëriñ mooma ànd sa neewal kon buñ buñ nee nun murit te lépp lu nu am borom Touba moo nu ko indi moo nu ko dimbalee fi mu ne feeñoo ci jamono ngir xëttalu xëttalu sayar ak bu baatu ñu ni kër googu dañu koy defaraat te dañu koy liggéey ñu am ci digul Sëriñ Touba kon loolu mooy kër gi gën a mag ci lu nu war a defar mbaa bu gën a bu màgg mu topp ca nag fii mooy xol kon nag dégg naa léegi

ruus ko liggéey borom Tuubaa boobee kon nag lii moom mën na lu te lool kat faal ba ci xejal xew na barab yu bari ndax sëñ Moussa Ka ba ñu yónnee malaakal mawti ca moom mu fekk mu fekk samaam ca kees da da ko wax ni ko su doon démb dañu lay rey suul la fii denc la fi ndax suuf su la denc suuf sa du bekkoor bu doon ca arab yi noonu la def nekati bobu malakul mu lañ ko yóbbu bañ ñëwee ba ci dimim sa la ko kaaw saamam sa Ibrahima Fall ni ko Moussa mu ne ko Mbàkke mu ne ko mën ngaa ñëw dem malakul mawti mo la topal señ Bamba xam fu mu la lak fu lu ci so wala yu mujj so ruu gii loolu ndigal señ tuba la won kon nak ndigal la ngi ku bëgg jëri ñëw ci señ bi ndigal li picc yu bari du ben bal ñëri picc picc yu bari ngay jëm ndax ndigal li kat ba nga xamante ni saa borom dogal nañu jox ko sunu kilifa ga sëñ Cheikh Fall jëm mu ñu ubbi ubbi liggéey bi ànd ceeg mboolem njabootu maam si Ibrahima Fall gi liggéey ko ba liggéey bi taxaw mu mu bàyyi na fa rakkam ju baax ji sëñ am mu Fall monsieur Modou Fall Mbenda mu doxol liggéey bi doxalin woo xamante ni wóor nañ ni magam ji bég na ci moom magam ji sant na ci moom magam ji am xelam dal na ci liggéey bi mu ko bataleel kon nag liggéey boobu la ñu tey. Serigne Saliou Fall yëkkati na ko léegi ku bëgg a jariñu ñëwal ku bëgg lu baax ñëwal ku bëgg mucc ñëwal ku bëgg xiiwal ñëwal lu bëgg daal liggéey baa nii ci la lépp aju kon nag ay ca murit ay ca murit ay ca murit ndigal ndigal njariñ bu ndigal jógee njariñ jóg na ay ca murit ndigal laa ngoog njariñ laa ngoog ay murit Cheikh Ibra yow ku réer ko gindee Jazboul Mouride au service de Mame Cheikh Ibrahima Fall